dalee nag jàmm seen euh, Sene Production sama gars yi nag tey di ñëw def portrait kii di euh, Khadija Seck ñu gën ko xamee ci tur Mariétou Touré ñu géwee ci euh, famille sénégalaise mun nañ nag Mariétou daal dinay am succès bu garaaw boo xamante ne moom mi sax yaakaaru ko woon am moo tax nag di ñëw wax jaar-jaaram ba na la def egsi ci Pikini Production sama gars yi nag mun nañ ni Mariétou medina la juddoo foofu la yaroo foofu la màggee foofu la defee léppam ba tax na nag moom mi lay Mariétou daal di nay euh, nekkoon ci école di jàng ba classe première foofu la daal di bàyyee école mun nañu nag euh, mu ngi doon jàngi école bu ñuy wax Anne Marie Zoé kon nag euh, école catholique bi nga xamante ne jàng na ba daal di première mu daal di quitté école dem def li nga xamante ne moo nekk benn formation benn formation CN Sop Afrique benn formation bu ñu wax hôtesse taqueuse moom nag Mariétou jàng na diplôme yu kawe kawe moom mi lay euh, Mariétou nekk na ki nga xamante ne tamit euh, ku calme la ku généreuse la ki nga xamante ne waa koñ mi yëpp ko joxoon na respect moo tax nag fu mu tegoon tànk rek gars yi wuyu ko te fu mu wote woon gars yi wuyu ko ba tax na nag moom mi lay Mariétou mosul woon imaginer que un jour dina dugg si li nga xamante moo nekk euh, série yi ba tax na nag moom mi lay Mariétou daanoon a participer si ay clip ba pare nag clip bi nga xamante ne nag moom la si gën a xaw feeñ sax moo nekkoon clip bu Elha Hadji euh, Keita de wuyu ma moo tax nag participer na nag euh, si euh, ay série yi nga xamante ne doon na daw fii si Sénégal comme lu ko dalee kii di VIP sañse mais nag foofu noonu mën nañu benn épisode rek la fa daal di woon assister ba tax nag foofu noonu mënuñ ko woon xàmmee foofu noonu ba tax na moom mi lay Mariatou si waatoon na si Grand Amour foofu nag série boobu si la ko gars yi commencé gis. ba tax nak waa Pikine si lañ ko commencé euh, recruter pour mu ñëw euh, def test pour mu daal di mën a jouer si euh, waa Pikine production moo tax nag ba gars yi gisee ni am na talent trop moo tax nag ñu daal di koy jël sélectionné ko pour mu jouer si li nga xamante ne moo nekk famille sénégalaise mun nañu nag famille sénégalaise moo tax nag mariet ñu daal di koy xam carrément fii Sénégal ak si bitim réew ndax nekk na ki nga xamante ne mosul woon jël wàllum théâtre di ko def si yoonam ndax moom mun nañ ni euh, li nga xam te ne moo nekkoon éducation am rek la doon topp ba taxoon na euh, ba mu defee formation boobu moo ngi euh, suivre woon beneen li nga xam te moo nekk formation pour daal di compléter li nga xamante ne moom la jugate woon pour def. mais nag mun nañ ni euh, yàlla moom euh, fu mu la rëddal rek euh, foofu ngay daal di jaar moo tax nag moom mi lay Marietou mujjee na si Pikini production te pour le l'instant nag gisatuñu benn maison de production comme lu ko dalee kii di Marodi wala Even Pro ak yeneen ak yeneen ñu daal di koy proposer li nga xamante ne moo nekk. théâtre yaakaar naa nag euh, dina ñëw ndax soo xoolee Mariette am na talent bi nga xamante ne bépp maison de production euh, dinañ ko soxla yaakaar naa loolu noonu dina ñëw ci kanam mais nag pour l'instant xam naa nag waa Pikine dinañ ko téye ba ci kanam ndax euh, am na importance te bokk na ci li nga xamante ne moo daal di tàll li di Pikine production moo tax nag pour l'instant gars yi duñ nangu mu génn foofu noonu ndax nekk na xale bi nga xamante ne dafa généreux ba pare am na talent trop si lu muy def moo tax nag xam naa waajuram dinañ fier ci moom ba tax na nag dinañ ko na a dolli ay ñaan pour mu daal di réussir gën a réussir te niveau mu egg fi nga xamante ne won ko woon moom lay euh, mariatu ñu gën ko xamee si euh, Khadija Seck sama gaay nak nag dinañ leen gën a xóotal li nga xamante ne moo nekk jaar jaaru kii di euh, Khadija Seck ndax soo xoolee Khadija Seck lu mu traversé moo sori te lu mu subir dafa métti trop moom lay Khadija moo tax sama gaay yi jaa ngeen jëf dinaa ñëwaat ak yéen si artiste bépp artiste bi ngeen bëgg rek ma leeral leen ay mbiram leeral leen jaar jaaram na la def ba egg ba réussir sama gaay ma maa ngi leen wax ngeen ko ci commentaire yi ba pare euh, aimé vidéo bi like ko te abonné ndax xam nga ni euh, série euh, dinaa si décortiquer personnage bu nekk jaa ngeen jëf sama gars yi